waaw salaamaaleykum man la Madiama Dieye actuel secrétaire général de l'ASC Cosaan de Pikine donc nekk également citoyen de Pikine Ouest donc Samba Sarr di suñu pratiquement lépp peut-être dañuy commencer par Massaou, en tout cas toute la population de Pékin. le monde du football tout choono ñep ou particulièrement également la famille je pense que depuis samedi ñun mën nañ témoigner en tout cas toute la grandeur de l'homme de par les différents témoignages yi chaque instant ñing avons koy ñing koy jot xam euh, message nit ñi nit ñi aussi ñing koy jot montre sincère montre que ni que ce monde-là euh, du sport, que le monde social, que le monde de l'éducation, en tout cas tous les segments de la vie, il y a en tout cas ce témoignage, ce reconnaissance sur l'homme. Nous avons la dimension de l'homme, la grandeur de l'homme, les différentes facettes également de l'homme. Donc, vous concevez aisément que c'est normal que Pékin pleure. C'est normal aussi nous, habitants de Tchassan, que nous pleurons. C'est normal également que sa famille pleure. Parce que aussi, euh, l'instant est trop lourd l'instant est trop lourd parce qu'on a perdu quand même une personne boo waxuñu une personne est irremplaçable mais on a perdu une personne boo occupé woon na énormément de place occupé woon na énormément de place donc di ñaan Yalla rek yàlla may ñu en tout cas may en tout cas tout un chacun ku ci nekk aussi tamit fi nga ko doon fété wala fi ku nek li mu la doon dans une vie dans cette vie là yàlla may ñu ay épaules yu large yoo xam te ni dina mën en tout cas au moins amorcer le socle c'est lañ que nous le choc maintenant nous bi que aussi responsabilité de à tous les citoyens de Pékin, que à tous les en tout cas responsables du football c'est une responsabilité individuelle pour que au moins que cette affaire là soit tirée au clair Nous tirons au clair pour que tout un chacun parmi nous nous ñëpp quitte à notre conscience et que le défunt puisse donc reposer en paix je pense que ce fait qu'il y a benn service c'est des prières continuer ko ay di ko ñaanal continuer également di dem di entretenir euh, sëgëm yeeg affaire yi je pense que lolu responsabilité individuelle ku nekk la par rapport ak sa relation ak waa ku nekk ak fi la waa je pense que tay certes dem na mais une suite en tout cas wàcc na ben fenêtre boo xam ku ci nekk ostane meun nga ko essayer rendre la monnaie sa famille mi ngi fi ak yenen ak yenen les prières et j'en passe donc vouloir faire un témoignage sur la personne je pense que man fima tok ni j'aurais même pas les mots peut-être après gars tu dinañ ci mën ci sur la sur la personne wala peut-être boo duggee après ci connais bi nit ñi gën a maintenant li may wax rek pour leeral nit ñi en fait pour en tout cas lever équivoque nit ñi je pense que wax yi mën na mais la version officielle et claire de la situation li ñu ci wax ñun ñu en tant que responsable ci équipe bi mooy que ni Samba Sarr doon représenté suñu équipe donc tey su amee kenn ki nga xamante ne tey mën na jàpp ni moom moo joxoon mission ou ji mu dem ci mission bobu non wacc ci liguey je pense que ñun la parce que moom secteur exécutif bu Dominique euh, centre euh, Baye job. Diop moom secteur exécutif tay su fekkoon ci secteur santé bi la wàccee ñoo ñooy nekk au devant de la scène sur le plan social également su fekkoon si la wàccee dem di dimbali wala nangam sangam peut-être ñoy segment yo estami dem teew sur le plan de l'éducation sur le plan également de son de ses responsabilités au niveau municipal parce que euh, comment dirais-je euh, euh, conseil municipal le conseil municipal en tout cas mu mu au devant mais c'est une mission wu ASC Cosaan la école. et c'est avec cette mission là qu'il a rendu l'âme donc tey Cosaan se doit de prendre ses responsabilités être au devant de la scène joxe les véritables en tout cas la véritable situation donc quelqu'un ku ko def rek peut-être xam nga nit ñi seen xol day fees peut-être wax la mais wax bu leer bu précise au-delà de sa famille c'est nous qui le portons c'est cosaan moom moo koy porté maintenant li xew mooy nekk na président district comme ni ma koy faral dans les différents plateaux de télévision et de radio et autres nekk na président district de Pikine ñu war a dem ci assemblée générale bu fédération bi le 7 août donc instance de base yooyu noonu structure yooyu dañu assemblée générale ordinaire de renouvellement donc biñ ciy dem première AG bi ñu ñëw mu am ay soubresaut gars yi def seen i pexe ba tey ñenn ci ay nitam en tout cas waroon ko voteel nekk ci ay club yoo xamante ne ci jàpp ñi ngi doon porter sa candidature waroon ko voteel ñooñu tere leen voté biñ ñu voté ñooñu comme moom un homme de principe c'est un homme de conscience c'est un homme de ki nga xamante ne dafa nekk au respect scrupuleux des textes moom mu introduire un recours en en la circonstance et au-delà de son recours le secrétaire général de aspikin muy Famara Soli moi aussi également introduire un recours parce que xamna ni assemblée générale ni mu ça a été biaisé gars épousé en tout cas le fond yépp dañ ko biaisé won tenir un recours boobu non l'instance le supérieure mu valider recours bi sommet les dirigeants du football de Pékin à ce que nous tenirat cette assemblée générale là du district de Pékin. et à notre grande grande surprise le jour où nous allons tenir cette assemblée générale là si une note venue de nos sais d'où taxaw ni day annuler recours bi en tout cas valider les premières informations wala le premier PV nga le premier assemblée générale C'est ce mu jaaxal ñu trop parce que aussi bu un PV à la suite d'un recours su ci un parti bi je pense que dans les délais impartis a une possibilité ñu def appel mais suñu fait appel nous aussi en tant que parti dañ ci wara copie et tel n'a pas été le cas donc lan mo créé cette note là ba remettre à zéro les contours. c'est des questions que nous réfléchir le siège ambassadeur avec le manager général de Akafouk, avec le manager général du modèle de ils étaient en train de réfléchir pour porter la question au niveau du TAS, Tribunal arbitral du sport. Et je pense que ce, à ce, point-là, les dirigeants du football au niveau de la Ligue de Dakar, au niveau de la fédération, chaque instant, ils ont pour dissuader quoi, mener ce combat-là vers, cette structure-là qui, est, le TAS. Donc, le, tout compte fait, mais le samedi passé, Augustin Senghor, il a rencontrer les clubs de Pékin les présidents des clubs de Pékin, la convocation en bonne et en due forme que ça recevoir. N'est-ce pas Une convocation générale en bas de page, énumérée sur, sur tous les clubs. y compris un club. Mais à la grande surprise, nous avons dit le CS Ambassade, accompagné de Mambala Sen, de Diapo, de, de Akofouk, nous interdit l'accès à la salle. Je ne sais d'ordre venant, de qui, mais les organisateurs, nous, nous l'avons indexé en premier lieu le président du fictif du district en cours et Babacar Gueye et euh, Amadou si le président de l'ODCAV de Pékin, qui d'ailleurs une une parenthèse vous n'y il n'est plus de Pékin. parce que c'est un en dévasage avec l'organisation administrative de ce pays le football ko par rapport à cette organisation administrative là depuis l'érection du département de Kermassar, il n'est plus de Pékin. tant au niveau de son équipe de navétane Silana tant au, également au niveau de son club. Club, il y a, point, un point d'interrogation en cela. Peut-être en d'autres circonstances et d'autres lieux, peut-être Donc, moi, je sous, tous ces, sous toutes ces formes-là, par rapport à son engagement sportif, il n'est plus de piquet. Je sais aussi après, les Piquinois vont porter ce combat-là pour qu'au moins, force en tout cas reste à la loi, comme on dit. Nous sommes en phase avec la réglementation ou l'organisation administrative en vigueur. Donc, nous, on les tient pour responsables par les ordres yoo xamante ne peut être à ces différentes personnes yoo xamante ne ñoo defoon nekkoon au niveau de la porte empêchant le siège ambassadeur Sarr mu dugg Samba Sarr xam-xam c'est un homme de principe c'est un homme de droit bu nekkee ci ci ci yoonam xam ni lii yoonam la mais je pense que diapul ni nit war na ko mën a mu en tout cas mu mu mu doxal yoonam mooy accéder ci salle bi porter la voix de son club et la voix en tout cas peut être des des des autres clubs yoo xamante ne tey ñoo porté woon sa candidature au niveau du district de Pikine pour que au moins l'homme de conscience qui a xam te ne ñooy de conscience tànk consensus nous noonu non je pense que loolu lañ ko xañoon mu jàppante fa ak ñoom ci buntu bi ba tey mu piqué fa crise et à l'issue de cette crise là bi muy jéem dem Dominique ci la décédé encore une fois je lève juste benn équivoque tamit ci côté boobu noonu dellu si waatul këram ba tey su dugaatee su su bi mu génnee këram keroog samedi bi ci ngoon 16h di dem fële di dem complexe ba ba nii may wax ak yow dugaatul këram donc personne ne nous dise que ni daa jóge complexe piqué crise dem këram doog dem Dominique tel n'est pas le cas une crise à au complexe à la suite donc de ces de ces de ces de ces tiraillements yi amoon ak gars yi gars yi def sur Dominique une fois dans la salle d'urgence il la succomber à à cette crise là mu rendre foofu l'âme donc ñuy wax que le consensus du football sénégalais a tué une personne le consensus du football sénégalais donc a tué une personnalité un grand responsable dans ce département là un grand responsable donc qui finit non pas simplement sur le football, mais un responsable sur tous les segments de la vie. dama koy faral di wax day day fekk nit ñi day mom assistance am ci nit ñi wala gungeem nit ñi day commencer bi nit ñi di judd tay fi ku fi judd 3 h 4 h du matin minuit extra falay ak commencer ak yow dem ak and ak yow ba nga am ben maturité ba mëna doxal sa wàllu aduna tout un chacun peut témoigner ça donc kooku tey la la nit ñi perte. ok euh man la ba Bah euh damay présenter juste si. voilà membre de l'ASC Cosaan du kasket, jël benen casquette donc aussi habitant de Khourounar deuk fi à la suite euh, ci li Madiama wax ni yépp man benn mbir la ci la ci bëgg léral rek moy bi am importance li mu wax mooy bàcc mission cosaan la demoon donc ci lolu le succombé dem wuy ji boromam ñu koy ñaanal yalla yalla nako yalla xaré ko aljana man nak du ma def témoignage mais message est lancé à l'endroit de tout le peuple cosaanois à l'endroit des autorités de ce pays celle du football et nous nga xam ñoo ŋànk mi ne la mort de Samba Sarr ne sera pas vaine moment bi ñu toll nii nag dañ nekk ci dëj daañu rob suñu néew ci ni ko yàlla bëggee ko yonenteem salaahu salaam ci loolu lañ jublu mais une fois Samba sous terre le combat que l'on doit mener ñoom ñu def justice mooy gën a yomb ci ñoom parce que tout simplement c'est le set là balaa ñu koy tenir Sénégal gii ñu nekk nii les responsables de la mort de Samba Sarr daañu leen woo ñu élucider ñu élucider mbir mi maanaam ñu teg ko fi ñu ko war a teg ba loolu benn bi mooy Madiama wax na aussi am solo mooy Amadou si mënatul Nek, président Odeka bu et voilà le message que Samba Sarr voulait lancer à l'endroit d'Augustin Augustin Senghor que ni jour bi Amadou Sy a meublé dafa décoré il n'a jamais convoqué des présidents de clubs..! il a convoqué des présidents d'ASC Samba Sarr accompagné avec le club yi club yi département ils ont voulu lancer ce message à l'endroit d'Augustin Senghor ils lui ont interdit l'accès à ko dañoo jëw parce que tout simplement Batch était parti seul parce que respectant les textes qui le football président a la ñu woo Bathie dem na en tant que qui maintenant li ci xew xew na ci Amadou Sy dañ koy wax lu leer comme midi complexe bi ont fi am accès parce que complexe est un complexe du département de Pékin.. lui il n'est plus du département de Pékin.. donc d'autres fi tek tank lolu ben la ñaal bi que ni il a touché l'ASC cosaan de cosaan football club dans son si di gën a xóot ci orgueilam mitir bu ne jaar na fi cosaan jël na trophée ñu nangu ko cosaan qualifié na fi ñu ñu daanal ko lu nekk xew na fi mais tey ki ñu jëlal mooy cosaan dans son ensemble donc loolu deewam boobu mënul rester ci loo xamante dañuy toog les ñun nag présentement nii appel boobu la ñuy lancer tous les fils de Pikine tous les fils de l'ASC cosaan mooy que ni Sama Sarr mësul fanano soxla kenn mësul tok ñu téye fi xalé police wala nit feebar wala nit am soxla samba dem teud nelaw ta faju lolu xagn ko ay wa këram dem dafa lok donc ñun tay li ñu ko mën a rendre loolu rek la moy tay daañ ko yóbbu jébal ko boromam mais ce combat ce refus dernier message bimu ñu lancer mom moy ñu refuser l'injustice et dans toutes ses formes et lolu moy wëy donc autorité lay lancer appel que ni jamm la ñaan mais jàmm joj pour mu am nañu élucider l'affaire ba mu jeex tak amul di jël ay demi mesure wala ay nangam sangam bàcc dañ ko ray bàcc a été tué par qui par ceux-là qui ont donné l'ordre à ces à ces à ces à ces vandales là ci bunt pour ñu tuer ko ñoñu ñoo ray te weesuwul Amadou si man je le dis haut et fort weesuwul Amadou si? c'est lui qui a donné l'ordre de retenir Samba Sarr ak ñi mu andal ci buntu complexe bi donc c'est lui qui d'une manière directe ou indirecte a participé à la mort de Samba Sarr donc lolu ñun cosaan ne restera pas les bras croisés do loolu message bobu la bëgg lancer autorité dëkk bi yëpp xam ko celle du football ak ñi nga xam ñoo ngank réew mi nga xamanteni ni ci lañuy dund ni assalamu alaykum wa ko ma ngi tuddu Dembali ñu gën ma xam ci petit ma nekk dirigeant ci AS Cosaan wa di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun donc di jall Pikine yëpp mais. plus particulièrement ASC Cosaan comme ni ñu koy waxee rek ni ko sama doyen yi waxee muy sama grand yi donc Samba Sarr moo doon suñu papa ñu yar ñu tatagal ñu tete ñu ci ay ASC bi pendant des années ñu nekk ci ak moom donc mu nekk nit koo xamante ni ñun nit mënul def témoignage su deux minutes wala trois minutes ci moom munu nekk c'est impossible parce que lu mu def la mais damay joxe benn anecdote rek bu ndaw ci jaar-jaar sama diggante ak moom en tant que dirigeant nekkon entraîneur petit catégorie ba ci cosaan ko gënoon non lepp cosaan dafa demoon gënal ko sax famem parce que jël na xaalisu dépense kërëm ma taxaw mu récupérer ko ci soxnam teg ko sama loxo pour mu dem jënd ndékki pour petit catégorie ñu mën dem jouer ji lolu ben témoignage rek bu ndaw pour wax kan mo doon sambassar ci biir cosaan jël na dépense kërëm jox ko soxnam génn dajeeg man may jël si xaalisu regroupement pour petit catégorie bi mu dellu récupérer xaalis bi jox ma ko ne ma demal jëndal petit catégorie bi ndekki nga yóbbu booy estade maa ngi ñëw kon kooku donc ñun cosaan amuñu lu ñu ko fayee amuñu lu ñu ko fayee ñun lenn rek moo ñu métti mooy li bàcc dem moom kese ñu def ko li ñu koy def te teewuñu man loolu mënu ma tëdd nelaw nii ak ak ak ak xel mu xel mu dal quoi sans froid mënu nekk parce que dañ ko tooñ ñun dañ ko bàcc di laa walaay di lancé appel nag non laal nañ ku ñu waruloon laal yóbbu nañ ku ñu waruloon yóbbu parce que bàcc nekkoon na kenn ci ñun individuellement rek lim ñu doon jëriñ ñun ci suñu vie familiale rek non buñ koy wax duñ fi jóg buñ koy wax duñ fi jóg parce que kenn ku ci nekk ci ñun bàcc guddil na la bëccëgal na la faj na la taxaw na la man en tant que la en tant que joueur ci club bi sama pommette gauche mâchoire pommette gauche damm na fi ci final zonal bàcc moo ma assisté ba keroog ma mën a toogaan nii di wax parce que toogaan naa presque un mois yoo xam ne mënu ma wax pipette rek laa doon naanee meew te meew yooyu carton la daan wàcce sama kër kon kooku man aw ma fayam pour témoignage bu gàtt rek ñu xam ne nit ku baax dem na nit ku amal njëriñ Pikine mais plus particulièrement cosaan dem na parce que suñu maam yi suñu papa yëpp bàcc saar ci côté santé ci Covid bi fi ne. moo jàpp seen loxo yëpp leen ci otoom yóbbu leen ñu vacciner leen tey ay nit yu tekkewul dara jalgati charte yoon muy tere lépp luy rassemblement ñoom ñu créer rassemblement dajee di réunir ba pare jël ci bakkanu sambasar Sarr non ñi ngi wax état bi di wax président Macky Sall di wax son ministre de sport non dossier bi nañ ci gaaw ñi ci war a daanu ni ñu daanu ci sinon pikin mos na yëngu mais dina yëngu pour bañ a guddal nag maa ngi koy yemale foofu di waat pikin yëpp di waat footballu pikin yëpp di masawuwaat encore une fois population cosaan bi yëpp merci. salaamaaleykum man la Pape Diakhaté dëkk Pikine Ouest di membre wax sa xalaat di dirigeant ASC Cosaan. bon pour wax ci Samba moom day nekk affaire boo xamante nii dina dina doy waar lool parce que ci kinu perte la Samba neexul ba neexul mais guy la te guy moo daanu koo xamante ne nii gox bi mu dëkk ni su la neexee buntu par bunt dugal néeg par néeg dugal amul ku mu fi seqalul teraanga kon kooku bu ñuy wax ci moom ay témoignage man dinaa ci sawar lool waxuma la dara sax xam nga fii li gën a garaaw moom mooy wàllu wér-gi-yaram moo gën a garaaw te nit bu wérul mënul dara te Samba li mu gën a concentré ci doomu adama mooy wér wér-gi-yaramu nit ki waxatunu sax waxu waxu dund gi sax mais li mu sonnee ci wér-gu-yaramu nit kenn sonn ko si ama man barki dem bi may mëjee wax mom kaddu gi ma mëjee wax mom ben kaddu la fii la tok fek mo fi wasa xalat makay togn nan ko Johnson lay pikiru mu del mu depart ñew tok nima yaw mom len dong la lay ñaan moy tàllalal sa loxo caméra yi tim la filmer la mais bul wax xaw nak lu mu jublu si bul wax xama vraiment affaire woo dafa marqué marqué ma trop xama nga bu ñu ci wal sport bi lolu mom defe naa si ko ñu bari xam mais dafa doy war parce que ben jour ma ak mom ñi ngi tok ci championnat bi équipe wara war a fubal yi rek ma xol waji mané ki dama est ce que wér sax ñu tok mu ni ma pap suba suma amé 60000 damay gagner équipe bi moy fubalal mané no non ki wërul yow 60000 ding ko yor nga wara mëna xalat lu nek amo lo xalat lu dul ay dina gagner équipe dafa graw ta defu ngir ñen lu ngir ñun ñi parce que ñun ndamu cosaan mooy sunu moom mooy sunu mbégte ñun ndamu cosaan moom mooy sunu fierté xam nga ko dal nii nag vraiment fi mu ko dalee metti nañu trop ndax daanaka dañu jëw parce que tey jii nii bu fekkante ne woon xam nañ tarfatil ay ni ni bàcc dina dem fu ñu ko téye biir Pikine non jëw nañu parce que loolu mënul nekk bàcc amul Pikine fu mu war a teg tànkam nit da nga koy téye xam nga mais nag bon ñu ngi koy sante yàlla bu baax.

mooy bàcc fépp fu mu tegoon tànkam ci combat wallahi créé na ay bàcc te duñu dellu ginnaaw ci lenn loo xamante ni combat loon mu ko doon xeex duñ ci dellu yotaa duñ ko si dellu lu waay mën na def mais ci kattanu yàlla fépp fi nga xam tegoon na fa tànkam muy combat ay doomam dinañ yeggali combat am wasalaam maa ngi jaajëfal ñëpp. salaamaaleykum mbokk Pikine ñi ngi ñi ngi ziar ñëpp ah, di di jox kenn ku nekk wàccuwaayam. man la elage malik Sam ñu gën ma xam ci turu Mam As bokk ci ASC sat donc au delà de Massaw ak jaale famille Samba dañuy jaale aussi la fami Fall bi nga xamantene mi ngi nekk ci rue bi di aussi tam imam Sow mi nga xamantene soxnam dafa dëdd ak ñom ndey gay mi nga xamantene maire awo Sow am na moo ancien officier d'état civil bu père Pikine West donc ñoo ñëpp tamit dem yalla dafa dogal ñu wacc donc ngi leen koy seen famille di ñaan aljana nek sen sen kër donc li ñuy wax ci bacc mom mun na bëri mun na bañ a bëri donc c'est c'est c'est des promesses manam li olof naan xass dañuy xass ni rek lek bi mu fi bàyyi woon incha allah ñit dinañ ko gérer et puis di wax ni tamit xam nga conscience am duñ ko trahir par rapport ak xex yi nga xamantene mi ngi ko doon xex pour le pour le département de Pikine bi ci ñëk moy moy terrain ciusan bi di wax ni comme ni ko Pape sank waxe bàcc mo fi nekkoon mais demam bi dafa créer yeneen Samba Sarr yu dul jeex donc di wax ni promesse bi ñuy njëkk a def mooy terrain bi li ci bàcc mbébétoon incha allahu rabbi dina aboutir mooy mu des nekk terrain cosaan loolu moom amuñu ci amuñ sax luñ ciy sikki sàkka loolu moom dañ koy wax mu leer mu nekk benn appel boo xamante ne xëy na ñi ngi koy lancer éventuellement ay agisseurs yu waaj a jug beneen bi ñu des bu ñuy wax ci ci dimension Samba. mun nañ fi toog ay heure duñ ñu fi jóge quoi donc li ñu mën a wax rek mooy am la ñu rocc cosaan quoi maanaam nit muy dox mu bi ñu ñu rocc ko loolu la ñu rocc au sein de l'ASC cosaan et de la population de Pikine nit ku disponible woon doon dox ci soxla nit ñi à chaque fois ñun ñuy am fi énormément toog fii di naan ataaya ñu romance ay nit feneen sax 3 heures du matin 4 heures du matin téléphone am mu jug dem nekk ci loolu donc nit ku mel noonu bu ko ñàkkee day nekk une grande perte donc di wax famille yi tamit xam nga que ni mënuñu féete fi leen bàcc féete woon mais à chaque fois bu ñu gestoo dinañu gis incha allahu rabbi di wax ni la la la la conscience de bàcc ne sera jamais trahie ak lu mënti xew ñit ñi fi ñu taxaw pour défendre li doon défendre démb ak bërki démb ñin nañ ci taxaw pas plus que il y a une semaine def na interview par rapport ak armée yi di wax ci extension bi yooyu bu fi bokkul ci ay lutte yoo xamante ne mi ngi ko ñu koy wax ni yooyu xeex yooyu yëpp fu mu tegoon tànkam incha la population de Thiossane en particulier et de Pikine en général dinañ ko dinañ ci taxaw am taxawaay bu mucc ayib donc pour ne pas être trop loin bañ a donc dañuy yemale foofu suñuy kàddu di ñaan yàlla xam nga appeler à la population de Pikine ci sérénité ñu denc ko comme niñ ko war a dencee di wax ni bàcc ni mu dundee noonu la demee il s'est toujours battu il est décédé en se battant donc loolu moom. xam nga lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy certifié quoi donc di ñaan yàlla mu xaare ko àjjanay firdaws yi xam nga donc wax njabootam yàlla may leen xolu muñ daal loolu daal lañu amoon li ñu ciy wax ñu ngi leen remercier merci